innovation dans le transport au Sénégal kun ci àndal ñu ne toujours Salam Transport indi nañu leen les bus de dernière génération bus climatisé fi bi ma nga ca boor ba télévision bu lay tax ngay fàttaliku ak di seetaan caméra de surveillance ngir lépp lu la réer bouteille d'eau gratuite boo maree naan naan chaise confortable boo xam ne boo ci xasee toog mën nga nelaw ba saala yaay ndeer ceinture de sécurité da nga koy takk avec des chauffeurs qualifiés et responsables ak Salam Transport saa su ne seen xol day gën di feex parfum 500 li ngay soxal li ngay soxal yëpp fii laa la fii laa la aaraal li nga may jox 500. te parfum bi 500 la ko jëndee de. yow yaa bon li ma jëndee ko 100000 ak waxaale 100 ba mar. waa jekk hmm? bi blonde bi gis nga blonde bi. man moom tissu laa tax bi ak waxaale ñu jaay ma ko fukk la mu def samay loxo su am jàmm. moom lu muy wax ak yéen man waxumaa ak yéen maa ngi laaj kese. man waxal te bu ma laal rek. yow kii mais ñëw ba sama wet toog mais sincèrement nag sincèrement nag da ngeen da ngeen def da ngeen def duñ def kon nii ngeen di xaaree gan gi nii. waaw allahu akbar. Eh, mbër léegi ñëw. mu koy xaar noppi leen rek. xam ngeen da ngeen am problème ñëw wax ma ko. Mm-hmm. man maa ko ni tout. dëgg la. saa leen amee problème ma génne leen si. loolu am na. waaw kay. kon na si man. bu baax hmm. ak lu roo kontaan. yow eh, sa say nit bu ma laal de yow. xaw ma loo koy looy toogee si moom sax laa xam dañuy jubóo si may ko loolu nag. déggoo ma déggoo ma dara fukk sama bët bii. ngeen wax ay tabaski mu leen di jëloon déggoo ma ne sama pilote wañ bu cent franc laay wuti su ma waxaalee ñu jaay ma ko fukki dara ma def samay lax si am jom. ci no stress. lan foo ne. amoo temps. xaalis bi nga jural xaaral dafa réer. réer. <laughs> da ngeen di gis nag gis benn immeuble. yéen noppi noppi leen noppi leen soodaa eh taisez-vous. ah te président yi woote. taisez-vous mbër yi woote. mbër. allo. waaw mbër xanaa da nga egg si. waa xaaral léegi ma ñëw jël si la yaa ngi si koñ bi nii. fi ma la waxoon fa nga taxaw noonu. waa xaaral maa ngi nii jël si la xaaral. sàjju leen maa def ay snap yu am jox balaa mbër mee ñëw. li nga wax sànq. eh. yow laay waxal. maa eh, lay def eh noppi. naa def nag bu am benn terrasse. ah waaye boo pare ci taabal ci taabal bi. ba pare ci taabal. mën nga def li nga ma ah, ko. ah eh bàyyi ko. neexal ko ko waaw neexal ko. instant yaa loo bëggee rek yaa ngi lay ko waa mbër doo doon ko jëndal lu seet sax mun naan ngeen bañ bon ngeen te amul xaalis. boo tegee boisson mu xam ni risque nga waaye bu ñuy gisee di daal ah. nga dëgg de naa ne sax faga daal ndoxu seet sax amul frigo daa yàqu de. <laughs> ayoo lees. rek am. lii de ko robinet bi ñëw coupé. mbër kaay daajul nii daajul nii si biir nii mbër daajul nii daajul nii jàmm daajul nii daajul nii si biir jàmm baax maa ngi si kii rek man nag fii daal mooy gën nay neex. waa dëgg la eh, fii moom. ah mooy paradise. muy ah ah. sa waay xam nga fi mu toll nii yéen leer ngeen ne mbëri xaalis bi kii moom xaw ma kande waaye. waaw ah, xaaral ma yàlla dugg xale bi yàlla bu ko yàlla bu ko cat dugg. def ko naaj non def ko naaj rek ànd na waaw ngi nuyu kii mooy Moussa kii mooy Soda. Soda moo la ma jël ma ma doon sa ménagère. Eh, Soda ah, defe naa boo. Ah, ma jóg ma loolu. <laughs> ay noonu sew diis. sew diis waaw waaw. ok macha allah. dëgg oui. même kuy waaj a daanu. xoolal balaa balaa dalee. balaa dalee. ñamalaa ngi nii. maa ngi nii ñamalaa. macha allah. miyaa. miyaa wu ñu noonu. waa dëgg bi bee. maa ngi nii. barki. kuy laajte du ko wax. barki yoroon na. maa ngi loo wax di. on naan tàng na de. baax na nag ci góor fii sa kër la. fii moom dafa lu la neex. waaw yaay borom. loo fi amul rek. Mhm. si yow la. loo fi amul mhm. si yow la man nag na wan fa woon nag yow soo fi jugee après woo ma. yaa ngi dégg loolu fi mu dafa am benn affaire yoo xam ne moo war a courser. waaw loolu quoi yow xam nga man xam naa. mais xaalis bi ma joxoon des na de. waaw d'accord. merci jaajëf. Eh. soo demee tey ñëwati yemal bu mbëkk gi dama koy ëppoo ko ma ëpp ko. nan la ma. mbër yaay si jàmm. si jàmm waaw ànd ko combat ak tàngaay bi. waaye gis nga tàngoor baa ngi ñëw. Ah. maa ngi lay gis si télé bi fëlaale. waaye gis nga di sànneeku. di ko fa. ak ñëw Balla Gaye man Balla Gaye dama ko bëgg. Balla mi ngi fi mi ngi fi. si jàmm dama ko bëgg. Balla mi ngi fi. de trois cent vingt quatre. si jàmm xaaral ma ñëw ci biir tàngaay bi. Dora naaw topp si topp si fan daf may neex ma jum mu neex ma ràcce ah heure bu yes Ambe. ah ah. ay yow kay dem nga naan kay tëjal buntu bi dañ ko kumpa ça samay copine la samay mbindaan ah. mhm. rek. naka na ak yow rek loolu dara. après dañuy xool lu nécessaire yi am si ñu gérer lépp allah. Ah. waaw soo ko waxee ma gëm. parce que moom suma suma suma suma boy la. ah suñu boy la waaw xam nga du ma dugal mukk si lu ma lu may gàncax waaw. loolu am na. mais naka nga def. ça va mais tur bi la. Thiam Thiam naka ah, ah yow moom Thiaba Thiam nga léegi. loolu foor ah, na waaw jéem a. xamuñu saa ñu naka affaire ah, bëri dañuy déggee sa bés. bëri waaw loolu di yoon. moo tax loolu di yoon. champion rek. yu waxoon na ma ko. ak loo bëgg day am. ak sa wat bu naaj. joxoñal rek. nga xam nga. da ngay dagg. non man loo bëgg ma. ay maa ngi jooy. Bambal. noppi nga de. waaw non dara pourtant. ah, ah fii mu tàng nag. waaw man garaaw nee naa la par naa gérer non. soo ko waxee ma gëm ko. après dañuy gérer lépp. réew mi. mbër yee fi moom. ko wax. waaw euh, noonu la rek. yaa ngi wàcc bu baax. waaw ñu ngi waaj bu baax. Ah. bëgg naa la de. waaw man nag waajum. non bu lox loolu. te koo raw nag doo ko seetaan bu ah, waaj. déet déet non ndax baax dina di ci mën dara. waaye sama xol baa ngi bàyyi ma jox la trois cent mille ay mbër. mbër rey lii pour man du dara non ba am na lu ma war a du dara non du dara kon da ngaa si rek. na ma nuyoo si nii. ay boo añ see fii toj. du ma du lu nga xam ne du may ñëw fii di wane. di wane noonu. tëgg samay tànk. xam nga yow loo bëgg mooy. sama boo ñëwaatee moom may non may indi may indi kilim si boppam. waaw kilim muy wax tuuti am na ko may allo allo oui lan wuy sama ndey sama maam moo gaañu sama maam moo gaañu

ngeen sonn ba bëgg a dee ba dimbali ba pare ngeen may teglu ma ataaya. boo ko ataaya doo si naan fan yëpp sama bopp bi day mel dama gëj naan ataaya damay laaj kese. yow sama sëb suuf la dama bëgg suuf la. man li ma génn dem ñu bi sama bopp. génn jaar génn waaw dara maa ngi nii dem ñu saa génn tàmmi la laal. xaaral may ma tuuti rek maa ngi lay woowaat léegi. waaw génn bu ndaw bi tuuti. damay génn paradis nii. bàyyi jàmm bi ngay xas dafa sañ si. ma jugal ko yow. yow ma jugal ki yow Mia. pardon. maa jum yow ma jum. yow jum kay. Thiaba. waaw ni Mia ngay wax Thiaba yow laay waxal jox ma damay génn nag. la laa lay jox. surtout lu ba wax ci pour tamit jox ma damay génn. la laa lay jox. ah woo ma léegi ma tëggal la biir ne la sa maam daal yaay. yow nag waxal yow dafa jox. yow bari démboo jaar da ngaa fàtte wala. nga indi sa paa ñëw toog ak moom mu sànni la sans. loo ñu jox góor bébé boobu. ah góor bébé loo ñu jox laa laaj. 10 000 amoo fi moo demal nga toog. Eh. du ñoo ak yow. say cent franc doo ko laal. Eh, eh, merci merci yow tamit comprendre. yow moom noo yàlla sonal. Ah. amul may wax ak dara doo ko laal pour man mii. man nag maa ngi laal may ma sama jàmm yow baa doola la. yow dara woo ma eh, eh, eh, jarul ngay tànn. waxuma ak yow paaka ñaari boor la aw ma nu may wax ak yow. ok waaw yow man weñ nga fu tooy nga takk góor yaay na ñeex ñeex bi nga doon. yow aw ma nu may wax ak yow yéen la rek yéen a fa. doola la yéen a fa doola la. ay yow mosuma si la taay bi. dafa réew yow kii dafa réew kii dafa xamadi. i ñaan dafa soxor. bii la la soxore. danaa soxor yow bu bees sax ngay jënd maa ngi leen di jënd bu bees. jënd takk doo si laal alma ah, mouchoir mu nee jooy alma ah, mouchoir bi. kon daal soo dem bi jaaxle a ko baax. koy bàyyi ko fii moom moo koy ñëw rek waaye. yow man maa koy neexal moo ko gisul loolu. yi métti na àdduna yi. Merci.